xale yi jàng bëri na ñi am diplôme na demande d' emploi bëri na formation yi bëri na mais tamit euh, par rapport ak liy taxawal si anglais def naa ne lu tuuti la quoi par rapport ak pour pour les vacances souvent activités yi ci bëri dafay résumer souvent des activités sportives dañ koy mener avec les jeunes associations yi nekk bii benn journal local boo xam de la presse en tant que jeune dañuy porter au volontaire de nga xam ne waaw par exemple comme actuellement ni période ñàkk ndox lañ ne mais di état bi xool naka lañ ba secours yi ndox bi am mooy si bu dee inondation lu fexe naka la ñuy appuyer population pour le dire que mais les jeunes c'est quelqu'un moo dafa war a engagé chaque fois que son peuple soxla na aussi dañuy jaay ay jaaykatu jën lañu ay ñuy nekk marché ñuy nekk ci gox yi di placer seeni marchandise ngir jënd pièces di naan ngir placer. bon association bi euh, li ko tax a jóg mooy euh, fexe ba am yokkute ci jigéen ñi te ku ne jigéen ñi wax nga njaboot gi wax nga communauté bi maanaam wax nga fi ñu dëkk euh, bañ ko sosee ba léegi ëpp na fukki at. li ñu ciy def mooy fexe ba nit ñi am euh, esprit solidarité seen biir maanaam am juboo ci seen biir mën a ànd xam ne ay nit bu ñu bokkee quartier yàlla moo leen boole parce que tubaab yi dañuy wax ni euh, on ne choisit pas ses voisins donc yow yàlla bu la boole nit ngeen dëkk bokk quartier dend ay kër il faut ngeen boole seen xol yi euh, di mën a daje di waxtaan di fexe ba réeroo du am seen diggante. metti na moom metti na ndax li nga leen di jox sax pour ñu ñëw rembourser la ko day nekk jafe-jafe ci ñoom dafay xaw a metti tuuti waaw day metti ndax koo ci gis moo yore këram jigéen ñi kóor yi ñu gëte nañu waaw ñu xale yoo xam ne ñu liggéey ñu waaw dafay xaw a metti daal ci ñoom vraiment. elles sont pas comme euh, certaines yi nga xam ne seen niveau de seen euh, niveau de revenu dafa dafa gàtt. am na ñoo xam ne seen i sëriñ ñu ngi leen di dimbali. am na ñoo xam ne seen jëkkër dimbaliwu leen mais ñooñu soxna lañ ko leen dimbali alors dañuy def ay formation formation bi mi ngi jëm ci ay yoo xam ne jigéen ñi dinañ ko itteewoo mooy defar ay cuub. mooy def ay formation en gestion gestion financière et administrative def formation parce que dañuy jël ay activités comme créer benn centrale d'achat nekk na boobu formation sax defaguñ ko mais ñu ngi koy waaj a def. boobu formation defaguñu ko mais ñu ngi koy waaj a def euh, waxoon naa leen am na élément boo xam ne tonton Abdou Aziz ma femme ñu ngi koy préparé ci ñi nga xam ne ñooy soxna yi ak jeunes yi ma bëggoon la laaj euh, euh, soxna Ndeye Niang en tant que présidente. des coiffeuses de Grand Yoff yéen coiffeuses yi ci activité yi naka ngeen taxawee seen gox naka ngeen taxawee seen bopp yéen en tant que jigéen naka ngeen compter taxawoo seen gox. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku fi toog ci turam ak santam. jërëjëf. dégg di rafetlu nag ñëw bii nga fi ñëw tey. jërëjëf jërëjëf. di ñaan yàlla yal na leen yàlla jàppale. amiin amiin ya rabbal alamin. parce que tey FM seetu askan wi moom jeexal na wax. dëgg la. te tubaarkàlla fu ngeen fël rek mu nooy nepp. ndeysaan ndeysaan jërëjëf yal na jëm kanam. jërëjëf jërëjëf. di nuyu nag monsieur le maire. jërëjëf di nuyu taa awa. ndeysaan di nuyu sama papa yi fi toog ak yëpp. macha allah. Adja Degene dañ ni ndimbal na ca fekk loxol borom. dëgg la. ginnaaw bi ñu sant yàlla nag àndandoo fii ci Grand Yoff. Mhm. jeune coiffeuse yi fi nekk yëpp. Mhm. ñu ànd depuis 2001. Mhm. fekk na kenn ku ne sax yaa ngi bay sa waar. dëgg la. waaye bi ñu ñëwee àndandoo booloo bokk mm-hmm. ndey ak baay mm-hmm. ku nekk ma taxaw ci sa buntu salon ni la ànd de dafa neex mm-hmm. te mbooloo mooy doole mooy doole dëgg la ñu àndandoo nag depuis 2001 ba léegi ñoo ngi commencé woon ci 2500 15 jours yu nekk ñu dem kër kenn natt fa suñu somu 2500 ak la ñu tollool ak sañuy rakk yi la ñu tollool ñu natt ko dëgg la dimbalee ko nit ni ko jëndal sa sagaru 16 ak sa benn taabal teg. Mm-hmm. xëcc bu daggul rek dikk. dëgg la ñun di mag. Mm-hmm. foofu la ñu jaaroon. Mm-hmm. ba ñu ubbi suñu salon yi amuñu sax seetu. sa benn tabul ya ngay teg ci sa biir néeg nag nga koy commencé. bu bëccëgee salon lay doon. su guddee nga lal sa mat laa tëdd. dëgg la kon dara xëyul sotti. déedéet. ñu nekk nag ginnaaw yàlla ak yonent bi ñu jàppale ñu nag. ñu nekk ci tey ba ñaata ngeen léegi. fi mu ne ci cent quinze. foo leen toll ci seen activité yi. activités yi macha allah. Mm-hmm. Adja Degene. Mm-hmm. booy def dara. Mm-hmm. ci dëkk. lépp di jàppale suñu maire rek. ñoo ci social. dëgg la. barki Demba Ndiaye gis na loolu. dëgg la. bi ñuy def loolu ba léegi tubaarkàlla ku ñu dem sa kër dinañ la fa teggil sa téeméeri junni. nga jënd sa yeneen i seetoo ak yeneen i fauteuil bu yàggee baax. te jigéen yee yor kër yi. te jigéen yee yor kër yi. ñoo yor njaboot gi kon. tubaarkàlla grand S gi ngay gis. Mm. ay noble rek fi nekk. dëgg dëgg la fii. Mm. kuy wër ku baax. Mm. boo ñëwee grand F di ko fi. soo ñëwee grand yo fekk ko fi. tonton Ndiaye loolu nag li mu wax ci bayre bi loolu laay dëggal. Mm-hmm. da ngay gis ko defi safaan ba ca àll ba. Mm-hmm. ñëw fii indi ko ci grand Yoff. Mm-hmm. xëy na nag ni grand Yoff toll. moo waral loolu yëpp. dëgg la mais dama bëgg jeunes yëpp taxaw. takku ñun ñi ñoo mën a dindi loolu. dëgg la. te incha allah dinañ ci taxaw. na jeunes yi taxaw ci suñu ginnaaw maire bii. dëgg la mu jàppale ñu loolu dañ ci Grand ba set wecc. dëgg la ndax ay noble rekk fi nekk. dëgg la Grand Yoff ay bañkat a fi nekk. dëgg la jeunes yaa ngi bay seen waar. Mm-hmm. jeunes fii ñoo ngi ciy def ñun tam lu ñu mën. dëgg la ndax ku mel ni man mii xam nga ni di former ay xale. presque chaque année. Mhm. deux ans personnes. ay mhm. filles ay mhm. jeunes filles. dëgg la bañ ñu taxawaalu. bañ ñu taxawaalu. ku am dërëm jël naa la ku am tànk jël naa la ku amul dërëm ma jël la te yàlla tax. dëgg la ndax dimbali sama gox. dëgg la dimbali foo nekk. dama fa war a def dara. dëgg la dëgg la. nekk ci dëkk nag tekki ci dëkk baa gën a wóor. bu baax. ndax mënoo jël lépp saf ko meer. meer. ku nekk maire la. ku nekk maire la ku nekk maire la. li nga def sa biir kër. Mm-hmm. def ko sa biir ëtt. Mm-hmm. def ko ba ca mbedd ma. Mm-hmm. soo ko defee incha allah bu ko kenn defee ñaar def ko léppay baax. dëgg la. di sant maire nag di ko gërëm. jërëjëf jërëjëf tàccu leen ko tàccu leen ko ah góor góorgóorlu la. yaa yaa ma woo de ne ma ne ma ñëw leen Grand Yoff. lii ma ne ndax lii laa doon wër. dëgg la dëgg la li nga ñëw Grand Yoff xool ni Grand la xool li nekk Grand la te yaakaar naa ne gis nga fi ay alim. macha allah gis nga fi ay intellectuel. dëgg la te ku baax ku ne nag boo ko seetee mu réussir tey. dëgg la jaar na Grand la dëgg la. xam naa yàgguma fi mais lu bëri xam naa dëgg la dëgg la dama ñëw rek fekk ñëpp di bañ may bañ comme ñoom. dëgg la ànd ak nag sama xale yu ñaaw lii dëggal. macha jiital ma te fakkastalu dëgg la dëgg la may ñaan suñu ànd bi yal na yokku amiin amiin te man rek maa fi nekk amiin ndax am na ñu ne ci ruq beeg yeneen ak yeneen du association bii rek ku mel ni mira dëgg la boot ay xale la te ñoom ñëpp ay bañkat lañu dëgg la kon yal nañu yàlla jàppale amiin amiin fu ñu bëgg egg ñu egg fa amiin yaa dañu bëgg raxas ko ba mu set wecc dëgg la ba ñu xam ne ñi fi nekk mérito nañu fii. dëgg la ay noobal lañu. ay noobal rek ci jikko nag ci jikko ci jikko yàgg nañ si mais safaan ba ñun gisaguñ ko. dëgg la dëgg la kon xam nga ne yooyu ay. yi rafet na waaye tamit kàddu gi rafet na monsieur le maire dégg nga li ñu wax ba tey euh, euh, ñu ngi nekk ci euh, activité des jeunes et des femmes de Grand Yoff dégg nañu léegi présidente coiffeuse yi wax ci message bi lan nga ciy lancé yaa ngi nii jeunes yaa ngi nii femmes yaa ngi nii lan nga leen di yokk lan nga leen di dolli. defe naa ne grande coiffeuse wax na wax ji yëpp. ndimbal na ci fekk loxol borom. comme lépp dajewul. ñun dañu jàpp ne fii ci grave suñu bëggee dimbali jigéen ñi. jim dimbale xale yi. dafa am na ñuy doxalee. dëgg la. xale yi ñu ngi jot seen i subvention saa su ne. bërki démboo Ndiaye. ñoom na fi Touré. jigéenu Grand Yoff yi. rassemblement. de GIE de Grand jox nañ leen subvention de neuf millions. pour ñu liggéey. pour su Nafi moom ñëwee. Mhm. dina wax ñoom nu ñuy liggéey. incha allah incha allah te incha allah loolu. Mhm. dañ koy gën a continuer. dëgg la parce que nit ki nag su dee dafay am ci lu mu yëngatu. Mhm. il faut nga ñëw fekk ko lépp matawul. dëgg la su lépp matawul nag il faut ñu. lay waa ji wax rek ñu paatu te géego ñu def ko ci géew bi. waaw ku nekk jël sa wàll. ku dëgg la dëgg la loolu moom du fi jóg. dëgg la te incha allah ñun ma dama koy faral di wax soo koy wax sax day mel nii. leneen la c'est pas des ay paroles politiciens. man Grand Yoff dama ko bëgg sama xol. dëgg la yëg nañ ko. et gis nga dëkk bi. Mm. mais jigéen ñee ko yore ah. jigéen ñee ko yor tàccu leen ah jigéen ñi. xale yi. ah doy na waar. gis nga man nag. Ah. man maa leen di berndeel man. dëgg la man ñëpp xam nañu ne. Mm. man jigéen ñi rek laa bëgg. dëgg la dëgg la looloo am tàccu leen li man yëg naa ko sax. ñoom xam nañ ko man yëg naa ko. man jigéen ñi rek laa bëgg. dëgg la. ñoom laxaat ñee ñoom. Ah. dama leen teg fa <laughs> Euh, monsieur le maire nañu jox Adja Nafi Touré comme ni nga koy waxee moom mooy présidente des femmes de la mairie de Grand Yoff euh, di diriger euh, RAF RAFAGI bisimilah Adja Nafi. merci Adja Dege. Mm-hmm. monsieur Bilay mina cheytaan rajim. Mm-hmm. bisimilah rahmaani rahim. barke ah, maa ngi leen di nuyu Adja Dege. di kontaan ci seen ñëw bi ngeen ñëw fii tey lii lu ñu yàkkamti woon la lu ñu bëggoon la. jërëjëf Touré. parce que dañ lay seetaan si tele bi. jërëjëf Touré. yaa ak sa équipe bi nga àndal. ndeysaan suñ koratee sax. dañ naan est-ce que dinañ ko defaat rëdd. waaw waaw ndeysaan bu guddee tànk jeexul. duñ ko duñ ko moo tax ñu ñëw ci yéen. donc moo tax. seen ñëw bi tey dafa am solo ci biir Grand Yoff. jërëjëf jërëjëf kon ñu ngi leen ciy remercier. jërëjëf Touré di nuyu suñu nijaay Ndiaye Lo. ndax nag lim ne fii commune am la dëgg la commune am la. Hmm? waaw xam na fi daal moom moom moom suñu xarit la suñu soppe la. dëgg la dëgg la maa ngi nuyu Abdou Aziz. ndeysaan Ndiogu Fama. ndeysaan maa ngi ziar bu baax di la gërëm di la sant. jërëjëf ah di nuyu madame la maire. macha allah Adja Awa Thiam. macha allah di nuyu nag suñu maire bu baax bii. Mm-hmm. di ko sant di ko gërëm. di ñaan yàlla yàlla na àggaleeg sagoom. amiin yaa rabbal aalamiin. kontaan nañ ci moom trop. maa ngi nuyu assistance bi ñu fi toog ñëpp. jërëjëf jigéen ñaa ngi nii toog. macha allah ñu bokk ci rafkaj yi. macha allah waaw secrétaire général la ñu toog. femmes yi ñëpp sont des membres. de la sociale moom mooy soxna yu taaru yi. soxna yu taaru yi macha allah macha allah madame ak euh, Aminata Ndiir. mooy secrétaire général bi. yéen yéen yéen lan ngeen di def lan moo leen tax a jóg. waaw euh, toog daal bàyyeeku waruñu. déedéet loolu xew wi nag war a jóg. dëgg la dëgg la liggéey nag. Mhm. jëriñ suñu njaboot. Mhm. jëriñ suñu borom kër yi mhm. suñu kër yi. dëgg la jàppale leen. dëgg la ñu ne nañ constitué wu en réseau. réseau lañu. ndax Grand Yoff dafa rëy. actuellement ñu ngi ci plus de 200 groupements. donc euh, biñ ko defee. ñu am suñu récépissé. commencé di liggéey. di def suñu formation. ndaxte nag. comme maire ni mu ko waxee léegi. Mm. Euh, ak ñeneen ñi fi nekk itam di dimbale jigéen ñi. Mm-hmm. il faut jigéen ñi am ci lu ñu jàpp. dëgg la ñu commencé defal leen ay formation formation ci lan ak lan euh, def nañ céréales local mm-hmm. def nañ savonnerie. Mm-hmm. def nañ fruits et légumes. def nañ teinture. def nañ perlage. def nañu couture. def loolu yëpp jigéen ñi mën a liggéey pour que rek jigéen ñi mun a li am lu ñu jàpp di. liggéey dëgg la. boo nga xam ne boo amee financement mm. nga fekk ko mu yëngatu mm. am fukki dërëm mm. boo ko ca dollilee day gën a yokk dëgg la donc renforcement de capacité loolu am na solo dañ leen ciy jàppale di leen ko defal loolu am na solo ñu ñëw itam am na ñoo xam ne revolving la ñuy def mm-hmm. ñu ngi toog ci mbootaay yi mm-hmm. di natt mm-hmm. di teggi ndax am na koo fekk ca marché bu mu yore keesu banaanaam di ko jaay dëgg la Euh, xëy na lam cay am jëruñu ko pour dépense su këram mhm. ndax nag dina jaay bëgg naa jëndiwaat bëgg na joxe dépense këram mhm. ndax njaboot gaa ngi koy xaar dëgg la école baa ngi ubbi kaye yaa ngi fi mhm. yéere yaa ngi fi donc loolu dañ leen di dimbale mm. ku yore keesu banaana nga ne ko am dama jënd beneen nga mm. dolli ci mm. loolu jàppale la dëgg la ba ci ñuy jaay gerte caaf dëgg la léeg-léeg nga financé ko mu daw jënd ay saaku gerteem ñëw teg dëgg la donc di saaf di jaay vraiment Grand Yoff moom jigéen ñi jàmbaar lañ dëgg la boo jógee fajar gi sax ñoom ngay njëkk a mbëkkante looloo ma jaaxal waaw ñoom ngay njëkk a mbëkkante réew mi daal jigéen di jënd di jaay dëgg la yore seen i njaboot nag ndax nag dëggeen si meer jigéen dafa néew doole mm-hmm. te te te ñemewuñu ñeme mhm. nañ sax ci liggéey bi mais dañoo dañoo oyof. dëgg la oyof dëgg la ndax dañoo rey njaboot gi. Mhm. te léegi njaboot gi. Mhm. ah il faut ñu jàngi. léeg-léeg ñu jàng ba en certain niveau. duñ ko mën a àggali. dëgg la kon li ma wax de moyen. manque de moyen. moo tax xale jigéen yi bari fi naa yi bari fi. dëgg la. tam nag seen yaay war a uti nag bu mu dee mu ñëw toggal leen añ. dëgg la léeg-léeg ñu saasaay doxe leen ginnaaw. kon yooyu daal moo tax ngeen am ay activité de formation. de formation bi jàppale leen. mais dañuy amit ay causerie. dañ lay fekk sa groupement fa nga toog. waaw ñu waxtaane suñuy mbir. ne la yàq xeewi na mbirum jigéen. Hmm. ci gaspillage bi. mbaa mbaa xewatu leen di yàq. déedéet kenn defatu ko loolu bëgguma ko. léegi sa nit ñi dañuy xew di làqatu. Hmm. donc ci di waxtaan ñoom aussi ci yaru xale yi ci biir kër yi. Hmm. dañ le cadre de concertation mm. développement communautaire moo ñu encadré mm-hmm. dañ ciy wàcc ci jigéen ñi di waxtaan ak ñoom ci paludisme bi mm. di waxtaan ak ñoom ci choléra yi mm. nu ñuy defaree kër yi ci set bi donc loolu yëpp dañ koy wax ci biir jigéen ñi nekkul fi rek pour ut xaalis wala leneen mais suñu nekkaani nekkin ci biir kër yi tam dañ koy jàngal jigéen ñi dëgg la xale jigéen ñi aussi dañuy ubbi ay centre de formation dëgg la foo xam ne dañ leen fa yóbbu ñuy am seen i nee nañ leen bureau rek du liggéey jàngi leen seen formation ngeen dem di ci formé wu di jaay di am ñoo xam ne li ngay am sax mooy ëpp ña ci bureau. jërëjëf Adja Nafi Touré kontaan nañu. joxal ma jeune boobu nekk sa wet ma laaj ko seen nekkil parce que chomage bi bëri na insécurité bi bëri na te nee nañu jeune Grand Yoff dañu am jom ah, ndey ña sànq mi ngi may naan lu ci bëri ñu ngi koy jiiñ jeune Grand Yoff waaye ñi koy def cosaanoo wuñu Grand Yoff am na wala amul yow en tant que jeune sooy xool paa yi dañuy wax père yeeg yi ak. jàppale bi ndax desul. salaamaaleykum maman di nuyu ñi nga àndal suñu papa Ndiaye suñu tonton Abdou Aziz. Mhm. mais di nuyu di gërëm bu baax suñu maire muy le maire de la commune de Grand a Mamadou Mbaye. di nuyu aussi sama yaayu bopp muy maman Awa Thiam. adjointe au di nuyu ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi. parce que Grand Yoff sànq am na grand njaga wax na ko fi. Mhm. mooy jeunesse bu am jom la. Mhm. jeunesse bu xam li mu bëgg la. mais jeunesse boo xam ne xam na aussi les enjeux de l'heure. wax na ak banditisme am na fa wala leneen ak leneen am na fa mhm. waaye damay rappeler toujours loo xam ne suñu kilifa daf ko mës a wax Khalifa Sall dama ko dégg mhm. journaliste bi ni ko Khalifa est Grand Yoff am nay bandi mhm. mun leen ndax bandi laa defe naa ni jataay bi ku leen xool amul ku fi nuroo bandi boo fi duggee aujourd'hui ñi ngi organiser wu association yi koñ boo duggee aujourd'hui ñi ngi constitué en association xool naka la mën a participer au développement de la commune parce que yi et là aussi la commune appuyé ñoom monsieur le maire mm. mais à travers aussi l'adjoint au messager de la jeunesse muy Madiop mm-hmm. xam ni fépp xam naa dafa am empêchement mais lépp loo xam ne ndaw Grand Yoff soxla na ko mm. lu ko ci maire yoon dina ñëw teewal jeunes yi te sentir nañu suñu bopp ci commune bi kon bu fi taxawoon na ne peut-être loolu du am donc aujourd'hui ñi ngi organiser wu mm. lépp loo xam daal jàpp nañu war na jëmale Grand Yoff kanam mm. en terme de renforcement de capacité di gërëmaale suñu yaay ndax lu ñu xewla lu ci bari dañuy woo ah xale yi indi leen ñaar wala ñett ñu dugal leen ci donc complicité boobu def naa la am ah siis yow nañ ci bu baax a baax sirène bu Grand Yoff ku ne dégg na ko <laughs> kon de kontaan naa lamb ak yëpp ak yëpp dégg nañ ci kontaan naa kontaan naa kontaan naa euh, Adja euh, Awa Thiam Ndeye Awa Thiam euh, su fekkee dañ ñu wax activité des jeunes et des femmes de Grand Yoff en tant que femme nga yore nag volet bu am solo neena naa volet bu délicat parce que quand même fu pauvreté am promiscuité am fa inondation am fa ñu jugee jeunes yi bëgg suqaliku jigéen yi bëgg suqaliku foog ñu jàppale leen monsieur le maire nee na def na léegi action bu am solo parce que 9 millions naa ak yeneen yeneen fekk na ko fi sax mu joxe ko mais yow lan mooy sa gis-gis ci war a mën a suqali jeunes yi sur le plan social. sur le plan social euh, war nañu dimbale jeunes yi. Mhm. parce que jeunes yi ñoom ñooy euh, magi ëllëg. Mhm. te xale soo ko jàppalee ëllëg dina mën a am fu mu taxaw. ba moom itam mu doon kilifa ba mën a jàppale ñeneen. dëgg la donc jeunes yi war nañ leen a taxawu. Mhm. te ki nga xam ne mooy seen maire. Mm. di maire jeunes yi di ma jóob mm. wax dëgg yàlla mi ngi def li mu man mm-hmm. parce que euh, ñi nga xam ne ci scout bi la ñu nekk. Mm. mu ngi leen di jàppale di leen dimbale. Euh, ñi nga xam ne aussi euh, ci football bi la ñu nekk. mu ngay toppatoo mayo yi. mu ngay toppatoo ballon de football yi. ak. mais Grand Yoff defe naa mbappat rek fi am de. ah Grand Yoff léeg-léeg ñu tudd nag làmb na rëy na. <laughs> ajaa dégg léeg-léeg nag ah. làmb ñu tëgg fa làmb yu neex yu neex sama jaamu séeréer yi ak euh, làmb kii bi ah. Euh, Adrien Senghor waaw waaw léeg-léeg ñu tëgg fa loolu il faut nga jox ci Alaaji parce que mbër rek la xam mi ngi noonu Alaaji mbër rek la xam mi la woon waxuma la ko nga dem ah. jox ko micro waaye Alaaji Alaaji looy wax ci activité yi Alaaji Alaaji bismillah nag loolu loo ciy wax ci nañu <laughs> kii nga amaat waaw li lim ci mën a wax bëri na Alaaji xam nga Grand Yoff miin nga Grand Yoff te dañ ñëw toog bëgg xam jigéen ñi ak xale yi ci lan la ñuy yëngu yow su fekkoonte ne nekk par exemple conseil maire nga nga toog bëgg ko conseil fan nga koy wax ne ni wokkal fii moo xasan dollil fii sa loxo waaw xam nga jigéen mm. Grand Yoff amuñu jigéen mm. Mm. waaw waxal lu ñu am dañoo jig Grand Yoff jig seen boroomi kër ba mën a daw laxasaay mën a indi leen seen bopp Alaaji Njaay loo Njaay nag fu ne génn nañ fa waaye tey li ngay bëggal waa Grand dafa rëy waa bismilla demal xam nga <laughs> xam nga diggéen ah. <laughs> tegale bu dëngee ndab la jiitu la waaye su jubee loo teg ci dem te du rot. dëgg la dëgg la Ndiaye. lu ñu mën a mën a mën a mën a laxasaay di liggéey bu ñu leen may loon doole du ñu dem. Mhm. dégg naa sànq am ko wax ni. Mhm. liir bu juddoo ñu tëgg tànn biir rof ceebu jën. Mhm. mu daw fi tax jël kub ba. ndey ma nga si ginnaaw jàpp ca mbagg ya. ba di daanu waaw loolu la sama doom bi wax. xam nga wax dëgg la. dama wax ni la. Grand Yoff soxna Dégane. benn bandi mu si juddoo Grand Yoff. mbaa wuyu. Mm. amu fi. Mm. pire grand yof miin fii de pire nga yow. miin naa fii laa la wax. Mm-hmm. lu fi mas a xaw loolu ñëw naa fi. dëgg la. ay farisa fi dëkk ay ndaanaane fi dëkk ay lingéere fi dëkk ay bañkate fi dëkk. ndeysaan ndeysaan ndeysaan dafa am lu nag lu xew. Mm. wàlleyaan moom li ëpp mooy def giraawaay yi ñibbi fa mu dëkk. cay wàlleyaan dëgg la. lamb ji nga wax yàgg na fi. lamb waaw. fii la séeréer samp baaxam. ah. dut ba kasaar. Ah. Moussa Ndiame Robert Diouf. Ah. ak ku ñuy Fodé Doussou Ba. Ah. ba ci dubalis mi day jur Balla Gaye. Ah. ñoom ñëpp ku si mos a ñoom nga Grand Yoff. Grand Yoff nag mos doon petit grand la mos a doon. Moustam. Mousta kon petit Grand Yoff amul. kii ñu fal nag tey muy maire. Mm. li mu war a dimbalee xale yi mi ngi ci. Mm. ndax daa jël commencé xale yi di leen dimbali ñu di ko dimbali. Mm. jigéen ñi nee na ñoom la jigéen ñi la sopp ñoom la àndal. Mm. wax na dëgg. Mm. li tax mu ànd jigéen ñi leen rek la. Mm. jigéen ñi yoof Yoff. du ñu contre maire. du wax lu ñaaw. doo dégg mukk politique ñëw ba ñu wax ci lu ñu war wax. ki yàlla samp nag tey muy Khalifa Sall. li mel leer mooy xelam bàyyi na ko Grand Yoff. ndax fi la dëkk fi la fekk lépp. waaye bu ñëwee. jigéen ñaa ngi ci maire ngi fi mag ñaa ngi fi. bu ñu ko fekk leen seen loxo seen biir. monsieur le maire nag li nga xay moom laa la gën di la conseiller mooy. Mm. soo amee cadre yu mel nii. Mm. ñu fonk la seen bopp bëggal la seen bopp. Mm. loo am di leen ko dimbilee. li nga gën a war a mën a def dëgg dëgg dëgg. sën yi. nañ leen gemb ba ñu fees dell. xale yu jigéen yi xëy na leen di suufu. leen doxee gannaaw nañu fexe ba forme xale yu góor yi. li ban ci Grand Yoff gépp te duñ ko fi indi ko fi te dëkkuñu fi. ñu génn ko ba mu fekk il faut am commissariat de police. boo demoon tey sa commissaire ba. amul amul commissariat. dama ni boo fa demoon. Mm. nga waaru. Mm. poste bi. booy dugg da ngay waa waaw ah, loolu poste la. kooku poste la. waaw poste la poste nag mënut a yor Grand Yoff. waaw waaye li ma xam daal diggéen mooy. Mm. Grand gii nu bokk nekk tey jii ak Abdou Aziz di waxtaan ak ñoom. li ma leer mooy bala nu fee yàgg ca dara. lépp lu fi bon dina deñ. lu rafet di nga ko gis gannaaw yow lu ñu bëgg dina am waaw suñ fi ñëwaat dama la ko nañ leen rek la gis nga jigéeni gannaaw yow mm. bis bu ñu ba fi taxawee xam mm. gis nga góori gannaaw yow mm. wax wax na dëgg de ku munte dimbali ci àddina danga koy jégul waaye ku ko jege mu dimbali la dëgg la dëgg la dëgg man xam naa ko tampoon nanu miinante nanu jërëjëf Alaaji tey nag bëgg na waa Grand Yoff te ay nit bu ñu la falee nag bu leen fàtte maire yu bëree ñoo tas seenu quartier dañ leen di fal. Mm. ñu wax lu neex ba falu. Mm. fatt ñu leen fal te ku fatt la fal ba léegi lali ful dalay. te dalul monsieur le maire. dalu ko dalu ko dalu ko <laughs> bëggoon euh, euh, balaa ñuy euh, dem monsieur le maire ñu wax tuuti ci benn question boo xam ne tonton Abdou Aziz jëlal ci yow laa ñëw après monsieur le maire préparé question bi dama bëggoon xam est-ce que hôpital Grand Yoff CTO est-ce que mu ngi profiter. Grand Yoff loolu problème bu ma tenir la boo xam ne bëggoon naa la ko laaj tuuti euh, en dernier tour de table Toto Abdou Aziz jeunes yaa ngi nii soxna yaa ngi nii yow soo doon conseiller monsieur le maire que sànq da nga ni comme mbay la sant rek kon tey émission bi dina neex léegi kon loo koy dool li loo koy wax ci sa gis-gis ci gànnaaw jërëjëf dégg ah. man dama am ñaari laaj yu ma bëgg a laaj monsieur le maire hmm. dafa am ñaari yoo xam ne dañ ko dañ ko décentraliser muy wàllu éducation. ak wàllu santé. école di bëgg a ñu jóge ci taw école yi ak élèves yi laaj ndimbal. fan la ci maire toll ci wàll woowu. ñaareel bi ci des ci wàllu santé. ban structure de santé actuellement ngeen nekk ak ban niveau de participation xam na ni bu nawet jotee feebar dafa yokk ci gox yu mel ni ay Grand Yoff mm-hmm. fan ngeen ci toll par rapport ak li nga xam ni. activité décentralisée kii euh, compétence décentralisée la mu jëm ci li nga xam ne mooy wàllu santé. jërëjëf monsieur le yooyu. kon ñaari paquet yooyu la waaw donc euh, <laughs> ci ci wàllu santé. Hmm. dama ne ak docteur Kass dañ fi ñëw def fi cancer du sein. Hmm. bi ñu ko defee ma gis ne askan bi soxla nañ ko. Hmm. ñu bëgg fi ubbi benn centre de dépistage cancer du sein ak col de l'utérus. matériel bi ñu bëgg jënd pour su ëllëgee la semaine deux fois mm. par semaine ñuy dépister jigéenu Grand Yoff. ah am na solo. à hauteur de deux mille cinq cent au lieu de soixante dix mille wala soixante quinze. ah loolu ah loolu parce que ñu ngi ci octobre rose te ñëpp xam nañ ne octobre rose mooy mois wu cancer kon su fekkee initiative bu mel ni dañuy ñaan yàlla mu yegg. loolu dañ ko def ak la jeune chambre. Mm. internationale ak docteur Kassé association prévenir. ñu ngi koy loolu dañuy ñaan parce que centre ba pare na. Mm. lépp pare na matériel bi ñëw. ñu former sage-femme commencé ci liggéey boobu nañ ko xam à l'entame de 2014. incha allah defe naa ne si euh, yàlla defe mm. ba lay 2014 dinañ ko def. incha allah tàccu leen lii. loolu ci wàllu sànq surtout jigéen ñi xam nga dépistage col de l'utérus ak cancer ça ça c'est ça c'est énorme. donc loolu. Mm. dimbal la. Mm. soo xoolee grand am na quatre postes de santé. répartis de manière géographique. sami municipal ci biir Grand Yoff la nekk. dëgg la CTO ci biir Grand Yoff la nekk. bërki demb recevoir na waa IPRES. képp kuy retraité IPRES. Mm. gouvernement bi dugal na xaalis foofu. Mm. ay millions mi millions. Mm. dañu leen ku feebar soo ñëwee fii. ñu yóbbu la CTO. nga faju te doo faj dara. te doo fay dara. doy yaa ngi nii toog. ah loolu am na solo loolu def nañ ko. pour troisième âge bi. dëgg la te duñu bàyyi. barki Demba Ndiaye jóge naa fi Paris. jaar Toulouse. indi naa plus de vingt sept lits d'hôpital. ci magasin bi. Mm. lalu hôpital bu ne. 700000 mm. lay jar. Mm. su ngeen génnee léegi ngeen laaj borom magasin. distribué naa ko ci carte post santé yëpp. Mm-hmm. te lal yooyu. Mm-hmm. may naa ci ba may ci sami. may ci CTO. defar sama poste de santé. ah loolu c'est très bien loolu defal nañu ko. ah am na solo. te nag comme li ma wax rek. soo jëlee budget Grand Yoff cent million nga ne 300000 habitants. nga tey soo ko doon séddale xam nga ku nekk ñaata lay am. 3000 francs waaw c'est insignifiant. xam nga 3000 francs hmm. nga bëgg jël neuf domaines de compétence yi. dëgg la il faut nga génn ci biti wuti pour am. dëgg la di gërëm suma rakk Khalifa Ababacar sal ndeysaan mais bu gaa yi fàtte. Hmm. bi Khalifa nekkee maire Grand hmm. man mi maa doon secrétaire général commune. dëgg la man nag commune laa jàng. dëgg la commune rek laa dëgg la kon nag man Grand Yoff gii. xam nga lu mu fiy jëlee. Touba yal na yéex <laughs> yal na yéex. leneen ah, bëgguma ko feneen bëgguma ko ndeysaan kon Grand Yoff fépp laa fu ne école yi ñu ngi leen di ah. préparer fourniture mm. bi ñu fi toogee ba léegi mm. fourniture craie matériel didactique enseignants yi yaa ngi fi te dafa am loo xam ne dañ ko dund mm. xam nga soo xoolee le vieux Grand Yoff pauvreté dafa nekk bi ñu nekkee ay xale dafa métti woon lool xalifa def la lait à l'école man ma def la fondé à l'école mm-hmm. tous les jeudis tous les mardis ñu ngi jox xale yi grand fonde plus de 35000 francs. kon fonde bi mu ngi à l'école en ce moment waaw fonde baa nga à l'école. ah ça c'est génial soo inspecteur nee na xale yi léegi dañuy at. waay fonde te fonde day tax nga téye li tubaab di wax. dëgg la ventre affamé. di nga xale yi léegi. Hmm. dañuy admis inspecteur la ko wax. waaye kon fondé à l'école bee tax ñu admis. fondé à l'école xam nga loolu bu FAE. waaw e. fondé à l'école waaye fondé bi na wër na wër Sénégal nag. mais dina wër Sénégal. suñu paree. am na ah. beneen projet pour les femmes. Ah. dañu bëgg defar ay boutiques. Hmm. yoo xam ne. képp ku bëgg soo ñëwee ñu ubbi sa boutique valeur u sept mille chargé la ko soo paree nga jaay jël sa bénéfice delloo nga liggéey nga liggéey ah tàccu leen loolu loolu loolu neex na loolu moom defe naa ne du ay waxu politicien la ay wax la yoo xam ne mu ngi fii su gaa yi bëggee yow soo bëggee sax yow dama koy topp yow soo ñëwee ma jox la bitik bu ma waxati li yow soo ñëwee ma jox la bitik waaye jox ma bitik waaye eh, donc loolu la vraiment. <laughs> ndeysaan encore une fois di gërëm ñëpp kontaan di sant ñëpp. kontaan nañu Grand Yoff ngi nii. man li may wax laxa laxaate ngi ree rek. ndeysaan xam nga man ku ma xam. Ah. bind naa lu ma téeméeri taalif. dëgg la lépp jigéen laa ko jagle. dëgg la kuy sargal jigéen ci Sénégal. dëgg la maa la ko dàq. te ku sargal jigéen yàlla sargal la. ma ne kuy sargal jigéen Sénégal. Ah, maa la ko dàq loolu man dama ciy tàccu. bind naa ko ci tubaab. ndeysaan def naa ko ci anglais. ndeysaan def naa ko ci wolof. dëgg la dëgg la kon nag yéen. aw ma kenn. ndeysaan aw ma ñenn. ndeysaan budul jeunesse bi. ak jigéen ñi jërëjëf Grand Yoff. yal na leen yàlla tett ci àjjana yi. amiin yaa rabbal aalamiin yal na leen yàlla tett ci àjjana yi. amiin amiin yaa rabbal soxna wa am tàggool waxtu bi dab nañu. jërëjëf tàggo bu gàtt rek. kon nag euh, waxtu bi daj nañu. kon nag euh, Adja Degene. maa ngi gërëm. waa Grand Yoff yëpp. jërëjëf ndax ñëw bi ñu ñëw tey teew. dëgg la wax dëgg yàlla mm-hmm. ah, képp koo woo rek mu ñëw teew ndeysaan war amel nga ko njukkal dëgg la war nga koo gërëm war nga koo sant ndeysaan ndax bàyyi nañu lu bëri dëgg la te terewul ñu ñëw fii toog jërëjëf dëkk teeru si leen jërëjëf kon maa ngi leen di gërëm di leen sant ndeysaan di gërëm itam waa TFM ndeysaan di gërëm seen directeur. jërëjëf di gërëm euh, euh, chef ba nga xam ne moo ko yore. di Youssou Ndour wallaay di gërëm ñëpp daal. jërëjëf jërëjëf jëf kontaan nag ci seen teewaay bii. jërëjëf parce que yëf yi comme yàgg. gàtt na damay gàttal rek li nag wi xajandawul ci bi xajul ci cin bi waaw jërëjëf jërëjëf tonton Abdou Aziz ma fama tàggoon. Ah, tàggoo di <laughs> nuyu sama di nuyu le maire Khalifa Sall. di ko di ko saragal di ko ran un vibrant hommage. ndax fii la jóge te nekk ba mairie Ndakaaru macha allah Serigne Diaw commissaire aux enquêtes économiques ñoo bokkoon benn service bàjjenu gox Astu Ndiaye ak jëkkër Moustapha mbay sama rak di nuyu njaboot gi yëpp Adja Dégène di nuyu waa waa Grand Yoff di leen sant di gërëm ci teewaay bi ak rafetaayu teewaay bi ndeysaan ndeysaan ndeysaan alaaji soxna Dégène xalifa mm. euh, euh, Abdou Aziz Laye Ferlo gis nga xalifa Sall mm. ba mu doonee maire yàgg na ba mu jubee yàgg na ba mu nangoo liggéey yàgg na ndeysaan ko fekk maire bu mag xam ni monsieur le maire nag. Mamadou Mbaye Mbaye. Mamadou le maire. tàccu leen ko man léegi sama maire la ah. Euh, monsieur le maire parce dafa bëgg garaayo. monsieur le maire ñu ngi ñaal bu baax. Hmm. te di wax amin ndeysaan benn waay daa ñëw ni Cheikh Amadou Fadel Mbacke ñaanal ma bu ma fàtte mun ko def fi lu ñuy fàttaliku boo ko defee doo niil fu ñu jaadee la fàttaliku. def fi lu ñuy fàttaliku. waaw ko def kenn du la fàtte. dëgg laa laaj. ñu ngi sargal bu baax. ndeysaan te ba tëddee nelawal. ndeysaan gis nga jigéen ñi. Mm. ku ñu cadré benn bal lañ la te bu ñu tiiree jam la te foo jaa dootoo daw da ngay paralysé raama fay daw. ñoom jigéen ñi ñoom day ñag nii benn bal la ñu yor. képp <laughs> te yow la ñu àndal. dëgg la. tey maa ngi lay sargal bu baax. ndeysaan ndeysaan ñang maa ngi lay gërëm bu baax. ndeysaan di lay ñaanal yàlla defal la jàmm. amiin te nag mbootaay nga boot yàlla nañu sax ba meññ. ndeysaan euh, turamóor yi ah. yàgg nañoo làng yow. jërëjëf maa la ko wax. bañkate ñu nii. ndeysaan ndeysaan. dama ne luñ ko jox def ci poosam la muy génnee ko ëpp. macha allah macha allah madame maire yàlla jàppale bàyyi laat sama sang maa ngi lay gërëm. kontaan na yal nañu fi daje ay ati ati at amiin amiin alaaji euh, di la gërëm dégg xam nga boo gisee jigéen ñu bari sopp laa góor ñi. Euh, yiw rek am solo. ndeysaan. li góor di yiw ci jigéen la gën. ndeysaan.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 saa yu ñu toogee tamit dinañ yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun liñ ci namm mooy jaale képp koo xam ne jamono ji ñu toog di waxtaan mel ni fekkee nañu mel ni tal nañu ñoom ñu ngi ci tiis nekk ci naqar waaye nangu dugalu suñu borom bi ndax àddina du kër xam leen ni daal groupe Futurs Médias seetu askan wi moo ñëwoon fii ci Grand Yoff di leen sargal lu fi jub ngeen xam ne suñu borom bee fi jubal waaye lu mel ni lu juba di suñu mëta di doomu aadama la yal na yàlla fayal ñu leen ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam may remercier bu baax a baax Nadoura mi nga xam ne moom moo ma habillé jërë ngeen jëf